呜。 salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna gars yi ñu ngi ba di baax a baax a baax di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen tey fii nga xam moom moo di ci diwaanu Pikine la ñu ñëw ah fas yéene ci tali bi fas yéene ci mbedd mi waxtaan ak ni ay citoyen la nekk ci réew mi ci lan a waxtaan ak ñoom muy li nga xam moom moo lëmbe dëkk bi ci film bi nga xam te ni moom mooy toj àdduna di internet muy Cirque Noir Cirque Noir di film boo xam ni Sénégal yëpp kenn rafetlu ko réew mi yëpp koy naqarlu muy ay jeunes yoo xam te ni réew mi lañ dëkk di ay sénégalais dëkk diwaanu mbuur à travers film bu am ñoo xam te ne xàmmee nañ leen xam nañ leen ci ñu def ko mu nekk film boo xam te ni kenn rafetlu ko parce que Sénégal loolu du suñu ay valeur Sénégal ñun ci suñu éducation yaruñu ci loolu Sénégal loolu du suñu culture mu nekk loo xam te ni ñëpp nga koy naqarlu li xew ci li nga xam te ni moom di monde cinéma bi ak téléfilm yi nga xam te ni mooy daw metti lu ñu lañ ko gis nañ fi li nga xam te ni moom moo di infidèle li nga xam te ni jaar na fi lu yàggul dara récemment ci kaaw bi nga xam te ni moo di kaawu leena ñu ciy wax pareeguñ ñu gis cirque noir mais laataa loolu gars ñuy dem ci tali bi dañoo bëgg waxtaan ak yéen tuuti rek ci li nga xam te moom moo jot a xew d'après bi ñu ci waxtaanee sax ba pare du moins ngeen baal ma mais dañoo bëgg ngeen dem ci chaîne YouTube bu Grand Théâtre TV comme ni ñu amee habitude ak yéen xamante ngeen dem abonné ci chaîne YouTube bu Grand Théâtre TV bës suñu cloche de notification du commentaire di thème cirque noir la bëgg waxtaanee waaye dinañ ci waxtaan ak sénégalais ñu xool seen avis ak naka lañ ko métti loo gars léegi-léegi ñu dellu siwaat ak yéen xool li nga xam te noonu la ko sénégalais yi dundee caméra bi vie la réalisation bi Babacar Ndiaye source montage Mame Diarra aja reportage bi Adama Diarra la aja gars yi vie topp ma ñu dem aja ku baax ñu ngi lay siyaar gaye delloon naa la ko naka tey waaw ñu ngi sant bi naka la man Bamba lañ may wax ah Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñoo ngi siyaar delloo naa la ko bu wér waaye ñu gis euh, lu yàggul dara ci biir semaine bi même pas deux jours ben film bi lëmbe deuk bi mu tuddu cirque noir mo gëna graw infidèle parce que lepp lo xamanteni ni euh, ci ci ñak sutura la ci film bobu ñu ngi koy wone ay xalé jigéen yu sey yi wone seen aura en tant que jeune yeug nga lool wala yëgoo ko dara xew yeug nga yeug nga lool lo yeug nako bu baax parce que hmm. depuis que téléphone smartphone yi xew yaakaar amul lenn luñu ñu ump moom lépp dama koy sétan wax deug na yalla parce que man duma sétan télé mais sama téléphone bi tare dara duma ci ump sérieux yëpp lay sétan ben de A a Z lepp lay sétan sérieusement mais biñ ko sétané ba gis ko yow en tant que jeune lo yeug non nakar parce que xam nga nous sommes jeunes comme nous mais les femmes, film bala maa ñëw sax cirque noir infidèle. comme nous yi taxés. koy taxé. Hmm. yooyu dafa am lo qui pour man valeur suñuy morale suñuy éthique. Hmm. une culture. Hmm. am na xam quoi pour man jaru xam nga loolu ñi nga xam war nañ ci dimbali bu baax parce que dëkk bi dafa nekk dëkk bu sell boo xamante ne am na loo xamante ne même bu fekkee am na ñoo xamante ne mën naan dañoo teggi ndawal ba def lu leen neex am ñu am fulla ak fayda ba ku def lu la neex ku def lu la neex ñu ne ñu def lu nu neex waaw parce que suñu dëkk la quoi kenn waru ko yàq parce que dafa am ñoo xamante ne pour man dafa am ci ay lobby wala ay business yoo xam ne ci li ñuy dugg pour xam nga xaw ma gagne-pain lañ koy def mais dafa am loo xam ne sàmm sa ngor moo ko gën effectivement parce que alalu àdduna dafay jeex. Mhm. fii loo fi gis dañ koy nettaliwaat. Mhm. te réseaux sociaux yi lu si dugg dootul dañ. kon dañ ko war a mën a bàyyi xel bu baax. Mhm. yenn yi daal man pour wax la yabaate la quoi. yabaate la war nañ ci jug taxaw ci bu baax. kenn ku ne war nga mën a jouer film. par exemple ma jox la benn exemple comme Idole. man maa ngi koy seetaan. comme euh, wiri wiri maa ngi koy seetaan mais yooyu mënoo ko seetaan ba génn ci yenn ñaawteef yoo xam mën nga ko wax wala mu explosé dañuy jàngale dañuy yeete mais ñii lan moo tax ñi mujjee ñëw récemment chaque jour ñooy def li leen neex mais tamit sénégalais dañoo bëgg lu bon hmm. parce que soo wanee lu bon ci loolu la ñuy seetaan effectivement bu fekkoon boo wanee lu bon doo am zéro vue ngay am non doo ko def mais boo bëggee lu bon même sujet da ngay xool commentaire bu ñu commenté lu bon hmm. boo gisee lu baax doo fa dugg ci lu bon li ngay seetaan c'est parce que sénégalais yi ñoo ko bëgg mais na nit ñi am fulla fayda rek ñi nga xam ne ñoom lañ ngànk ñu jox leen business bi hmm. non ku fi def loo warul def ñu teg la fi ñu la war a teg non angay gis naa vidéo yi yow noo gisee loolu non loolu noonu man moom dama koy suivre quoi waaw pour dire vrai dama koy seetaan moo mais yow non non bi nga gisee loolu loo yëg. lu ma yëg mbégte rek ñaan yàlla mu continuer. baax li nga <laughs> yooyu dafa garaaw di moo. barki yàlla moo am na am na ñu fi ne di seetaan ay porno waaw waaw ñu seetaan ay porno mais loolu bu ñu ko tegee ñu dañuy seetaan. mais Abdallah yow li nga wax nii dëggantaan ci yow la nekk dëgg la wala da ngay mbalak. lu may doon di mbalak mais wax nekk si yow. dara nekk dara nekk ci moom ku nekk sa opinion. waaw noonu la demee nag. yow da nga ko seetaan bëgg. dama ko seetaan di kontaan. apprécier di final waaw zonse. <laughs> barki yàlla ku nekk sa bëgg-bëgg. ma ne moo waaw. ah mais yow bu doon yow di ko joué. ba ñu joué. nañ ma jël yow ci loolu ne la kaay nga def ko di nga def. nañ ma jël ça c'est waaye escart ordinaire kay loolu dafa garaaw. bii laa bu ñu ma jëlee ma joué nañ ma jël moo. <laughs> mais amoo ci dara lu la ci naqar yow. amul amul dara lu mën na mais Sénégal yi koy métti du yow kon yow yow yow yow boo xoo ci ñooñ yow déedéet man bokkuma si ñooñ da bokkuma si ñooñ loolu ñoom la rek xam nga ku nekk sa bëgg-bëgg <laughs> waaw Abdallah ray na ah non mais ku nekk da nga sa bëgg-bëgg message bu ñu ci bëgg a jàllale yow message message bi ñu ci jàllale conseillé waat jeunes ak ñi koy joué non ñi koy joué dama leen encouragé rek xam nga ne leen nañ ko gën a yokk xam nga mooy loolu noonu waaw ku ko bëggut a seetaan nag wul seetaan ñun bëgg nañ seetaan ñu bañook suñu série ñu seetaan loolu dafa garaaw. daa garaaw seefooni la jaajëf Abdallah. ah a la wax dëgg yàlla man maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax. te hmm. sama gars yi laa gis benn jour ñu kii ko seen téléphone di ko seetaan quoi. Hmm. ñu wan ma ko mais duñ ma ko gone. koy dama déplané dama ne instant bi jigéen amatul valeur. waay dëgg yàlla instant jigéen amatul valeur. Hmm. man damaa yaakaar ay foo la quoi. ma ne lii ba xam est-ce que ñag yi la. booy na ma déedéet ñii xam nañ leen. ay Sénégalais lañ fii lañ dëkk. affaire yi jaaxal ma ne kon léegi lii mooy léegi jigéen ñi léegi instant amatuñ valeur ku mën a jaay sa bopp da ngay dem jaay sa bopp. effectivement billaahi. mais mais mais ñu gis ñu gis théâtre yi nga xamante ni xew na léegi gis nañ fi kaawu leena mu def lu mel noonu simmi nañ ma nañ ma waal ci kàddu simmi fili bam yàggul dara ñu gisaat lu mel nii théâtre Sénégal léegi ak bon du ma ne sax théâtre Sénégal téléfilm yi ngeen koy seetaan di gis yooyu nu mu leen di def non métti nañ trop moom wax dëgg yàlla parce que instant ku ci wax ku ci wax maanaam dañ naa la seetaan nga parce que ñoom lobby bi ci kaw la nekk parce que bu ñu defee li bon li ñuy def ba pare mm-hmm. après dañuy jéeg-jéeg borom xaalis yi leen di takk mm-hmm. gis nañ ci ay cas yoo xam ne jarul sax ma ciy tudd ay tur quoi mm-hmm. xam nga li wax bu baax a baax baax dañuy jël wane seen taat ba pare sëy bu jotee borom xaalis yi ñëw financé ne may ne ay un million deux millions cinq millions te gën a xam mooy loolu léegi ñu fàtte bëgg a ba tey tax ba tey yii nii tax na nit ñi léegi papa ak yaay doom ak yaay amatuñu sañ-sañ toogandoo ci benn salle di seetaan théâtre à cause de yi te bu njëkkoon loolu da daa am. gis sunu kër am na sama sama jarbaat bi buy seetaan novela bi jékki-jékki am ñu ñaar nit ñuy fóonante. damay jafe-jafe di ko seetlu waaye day jékki-jékki bu ma gisee day jékki-jékki gëmm. du ko du nangoo sax xool. di laay aja gars yi ba tey ñu ngi ci mbedd mi ah, tey dañoo ñëw fii nga xamante ni aussi tamit kii moom xam naa ko suma grand la muy Mambamba ñu fekk ci place am ñuy woon a gars yëpp nañ ñëw fii di ko fi jëndee Mambamba ñu ngi lay siyaar ñu ngi leen koy delloo bu wér a wér suñu mbokk taalibe yi mais yëg nga la xew ci dëkk bi muy film bi nga xamante ni moo tudd Cirque gën a garaaw infidèle def fi loo xamante ni kenn def ko ci wàllu ñaawteef yëg nga information bi loolu moom ñun képp kuy sénégalais di sénégalais da nga ko war a naqarlu hmm. ndax euh, fii yàlla dafay def loo xamante ne mhm. ñun dinañ fi nekk incha allah ba jóge fi dara warta mën a ñaaw mhm. waaye tey dañoo nekk ci mujjub jamono mhm. nit ñi ñi ngi doxee noo xamante ne xooluñu seen dignité xoolatuñu seen i valeur xoolatuñu seen ngor man yaakaar naa boo demee bay def cinématographie war nga ko defee ci comportement boo xamante ne bu sérieux ndax loo xam day dugg ci nit di dem ci dans le monde entier kon loolu dañ ko war a xool xoolaat ko seetaan ko effectivement yëg nañ li fi xew nag. Mhm. ñun ñëpp ñoo ko naqarlu. Mhm. Sénégal yëpp di ko naqarlu. Mhm. ndax fii dëkk Sénégal la te Sénégal mooy dëkkub jàmm. te jàmm lañu xam jàmm la ñu war di def jàmm si la ñu war di xëy di ci ne. ñu baax ñi de loolu la ñuy bàyyee. kon keneen ku fi ñëw indi leneen. day delluwaat ci yow rek. ndax lu baax boo ko defee sa kaw lay këpp kon yaakaar naa lu bon boo ci nekkee da nga koy gis ñi koy def xëy na man jàpp naa ne ci benn côté dañoo réer ndax réer weesuwul ñu wana la télé ci melokaan boo xamante ne yow nga am yaay am papa am ay njaboot suba nga war a doon dara ci sa réew hmm. kon yaakaar naa war nga mën a am ngor goo xamante ne ba lépp lu lay dugal ko xool nga seetantal en tant que jeune ban message ngay jàllale bon na waajur yi di toog di waxtaan ak seen doom yi parce que instant bi àdduna toll na foo xamante ne foog ñu waxtaan ñëpp di waxtaan jigéen ñi bëgg nañ xaalis góor ñi tamit dofuñu boo ñu dañoo yeewu wax dëgg fa yàlla boo ñu instant yi dofuñu de dina jàppale sama genre yi ñoo ib seen bët di xool bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax leer ka yow di gaay li gaa naan li gaa naan yo li gaa naan xaw ma dooli cere yokk yokk cere dooli neex waaw saa yi moom moo fi sës góor ñi moom nañu fexe góorgóor bu baax a baax a baax fexe liggéey bu baax a baax a baax góorgóor quoi parce que am na yoo xamante ni gar na daw quoi billaahi parce que lii kuñ ciy tudd sarax wala koo xam xam nga rek mooy loolu heureusement ba xaw ma ci kenn nag. dëgg yàlla waaw te a rek. jaajëf a xam jaajëf. mooy loolu jaajëf xam nga am na loo xamante ne nit ñëpp yamuñu ku mel ni man. yaroo naa foo xamante tey. lu ma mënti seetaan lu ma bon bon mënu yàq. Hmm. mais am na ñoo xamante ne dañoo dañoo yor jikkoy ngelaw fu leen ngelaw li fekk leen di ëf. bu ñu seetaanee loolu yenn xale yi pour ñoom loolu Euh, nan laa ko mën a waxee affaire de bëgg buzz affaire de voilà am ci moonin da leen koy jaral ñenn ñi dañuy roy daal ni ma ko mën a wax dañuy roy te liy jik sawaay mën na la bañ a jik mhm. cirque noir moom wax dëgg neex yàlla euh, bu dawee ma xam ne ñun sénégalais yi nañ fulla trop surtout ñu ñu dénk mbir mi mhm. wax dëgg ne yàlla ma xam ne ñàkk nañ fayda lool lool mhm. voilà taxawaay jigéen ci réew mi léegi noo ko gisee rawatina à travers film loo xam nga taxawaayu jigéen jigéen jigéen jigéen jigéen dafa cher. Hmm. jigéen mooy suñu yaay jigéen mooy suñuy rakk mooy suñuy mag. Hmm. mooy suñu yaay rek daa daa daa doy na lépp voilà dafa ëmb lépp. Hmm. ba ci am na loo xam ne jigéen ñi buñ koy def. kenn ku si nekk war nga sóor sa yaay. xam nga bañ bañ ko def nii rek pour lu la neex. wala ñu la koy imposer. vu que xaw ma chantage lay doon xaw ma. dañ ci dugg ci ay contrat yoo xam ne biñ ciy dugg xooluñu contrat yi ba xam li ci baax ak li ci bon ba. dem ba ci biir dootuñu mën a génn xaw ma déet daal. mais toute façon moom valeur moom jigéen ñi amatuñ ko. te loolu dafa sax xaw a diis ñu koy wax si sunu ka sunu kàddu quoi valeur amatuñ ko ndax à travers film yi ñuy seetaan ay jigéen ñooy def lu ñaaw. dëgg la voilà. est-ce nañ ci yow. non maa leen gën a bëgg. yàlla na yàlla sàmm. amiin ñu far am leen jàmm xéwal. taw féex. waaye loolu moom ñun ànduñu si tey. Mm-hmm. ànd ñu ci suba mm-hmm. loolu la ñuy xeex comme ñëpp mm-hmm. ndax fii moom lu mag mën a xeex rek gone mën na ko xeex te yaakaar naa xeexu gone sax moo ëpp doole xeexu mag mm-hmm. ndax lii du yëfu mag suñu yëf la ndax tey luy yàq suñu société ñun dañ koy naqarlu phénomène yu bari nag mu ngi fi jaar yu baree baree baree bëri da ngay gis tey góor boo xamante ne day yor comportement boo xam bu la rombee day mel na jigéen te loolu daana ko ak góor jigéen sorentewul kon maanaam li créé góor jigéen foofu la nekk parce que du ne kii góor jigéen la waaye tey am na melokaan booy melokaano melokaanu góor jigéen rek kon góor jigéen la te loolu yëpp ci ay kër la ñuy génnee di dugg ci ay kër kon ñooñu di leen dooleel yaakaar naa ne ak ñooñu ñëpp danoo bokk réer mm-hmm. waaye Sénégal bi mm-hmm. jàmm rek lañ ci war di saxal te jàmm dong moo fi xaj seen liggéey bi ngeen liggéey hmm. jàmm moo leen ko may tey ba ngeen ko mën a liggéey seen sago kon ñoom tamit loolu ñuy def muy xeetu film yooyu nga xamante ne man jàppee mu ko film lu ñaaw teef laa ko jàppe parce que day yàq suñu société yàq sunu njaboot hmm. yàq kii bari am na yeneen yi fi jot a jaar ñu naan tane naa tenewul waaye lu tenewul rek loolu baaxul ñun lu gën la ñu soxla ci réew mi te lu gën nag ñoom yaakaar naa ñoom ñi nga xamante ne ñoo la ñuy wax ay star mm-hmm. ñuy wane na ñoom ay star lañ kon star man yaakaar naa mooy danga nga war a créer lu rafet mm-hmm. ci sa peuple bàyyi leen ko bu subaa mu doon kay mm-hmm. loolu mooy star waaye ñooñu damay ñaan yàlla bu fekkee loolu ñu nekk am nañ ci ndigal am nañ ci kilifa ñu bàyyi ko te xam ne alalu àdduna jaru ko jaay sa ngor nak jaay sa diina bu suba da ngay dess ak sa borom te ku nekk di nga deda daal jaajëf waaw kontaan na ñu kontaan na ci yeen jere jaajëf grand kontaan na ni seen liggéey bi nak yalla na suñu borom tek loxo amin ya def ko ay television ay television bo ñu ci wax ñun ñep suñu xalaat li mom rek lañu am muy baat bu ñu mëna wax ñun mbedd mi lañu am kon mbedd mi lañu mëna wax a waxee suñu donné waaye na ko ñëpp yëg te li ñuy wax fulla la ak fayda te lañu ñor dañ koy xex tay xex ko suba inshallah wasalaam grand